ñu ngi war a jël aaya bi jëkk ci suratu raad in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين lu jiitu ñu ngi ñaanal yàlla kenn ci su suñu ustaas ñu koy tuddee Malick Diallo mook docteur Mouhamed Lo ñoo bokk géndandoo fële ca Madina yàlla dafa dogal mu faatu doonte ni mi ngi doon taxaw taxawaay bu rafet ci lislaam ci ñi daan jógee ay Maleek Gineek fu ñu di ko fekki yal na yàlla teroo ko njëggal ak yërmande defal ko aljanna muy wàccuwaayam ñi ngi dal tey suñ tafsir bu mujj ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ngeen xamee ñu ngi ci tey ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci li nga xam ne mooy zulhijja di weer bi mujj ci weeru lislaam incha allah alarba bii di ñëw day nekk ci biir at mu yees yal na yàlla fekkaloo ñu ko kon ñi ngi nekk suratu ra'd war a jël aay bi nga xam ne moo ca jëkk incha allah bismillahi rrahmani rrahim ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنبرم مني ألف لام ميم را allahu aalamu bi muraadi moom moo xam sunu boroom lan la namm ci loolu tilka ayatul kitaab lii nag moom mooy kaawtéefi téere bi wallazi unzila ilayka min rabbika alxaq li nga xam ne nag wàcce nañ ko jëme ko ci yow mu jóge ci sa boroom lool day mooy dëgg walakin aksara annaasi laa yuminuun waaye li ëpp ci nit ñi day nekkuñu ñuy gëm allahu lazi rafaa samawat yàlla moomu nga xam ne moo yëkkate asamaan yi bi geyri amadin tarawnaha ci lu àndul ak benn keno bu ngeen di gis ay ay piye yu ngeen di gis summa stawa ala al arsh gannaaw ba mu dem ca kaw arasham ba wa saxara shamsa wal qamar daa di tàggat jant bi ak weer wi kullun yajri li ajalin musamma gannaaw ba lépp ci loolu ma ngay daw jëm ci benn dig boo xam ne bu ñu tudd la ba pare yu dabbirul amr mooy wëlbati mbir yépp yu fassilul ayat mooy teqale aaya yépp laallakum bi liqaai rabbikum tuqinuun ngir ngeen nekk ci daje bi ngeen di war a daje ak seen boroom di ci am ngëm goo xam ne ngëm gu wóor la wa huwa allazi madda al ard yàlla moomu moo tàllal suuf wa jaala fiha rawaasiya wa anhaara def ci li nga xam ne mooy ay montagne ak ay dex wa min kulli samarati jaala fiha zawjayn isnayn ci bépp façon meññetit moo ca def ñaar peer yoo xam ni ñaar la yughshi layla nahaar mooy muuri guddi lii di bëccëg inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun nekk na ci lii lépp day ay kawtéef ñeel xeet yoo xam ne dañuy nekk di xalaat mbokk sunu boroom biñ génnee ci saar bu neex bu tedd boobu di suratu yusuf mu ubbee ko woon alif laam ra sunu saar bi it dolli na ci benn miim ay alif laam miim ra lan la ci jublu xamuñu ko doonte ne bokk na lu ci logique mufassiruuna yi ni sunu borom day dëkk doomu aadama yi di leen wax ni alxuraan jii ngeen waxi nit la ay lettre rek ñoo ko composé ci lettre arab su dee ne yéen da ngeen a wedd loolu jël leen lettre yooyu ngeen indi lu mel ne alquran doonte ne it waxin la boo xam ne arab yi miinuñu ko woon donc boo ko yëkkatee fokk ñu déglu la toog mu jëre nga ne alif la miim kuy arab dana la xool kii lan la bëgg a wax loolee sunu borom toujours lam cay teg mooy day défendre téeréem bi looloo tax tey bi mu ne alif lam mim ra lan la ca teg lii mooy kaaw téefu téere bi téere boobu nga xam ne nekk ne juróom benn junni ak ñaar téeméer ak nangam lu topp ci ay aaya aaya bu nekk màndarga bu leer la bu lay jàngal laa ilaha illa allah di la jàngal muhammadu rasulullah ndax kaawtéef la buy wone na yàlla rek moo ko mën a wàcce ca yonent bi alayhi salaam moo ko jottali borom boobu nag daa dina yow yonent bi li ñu wàcce mu jóge ci sa borom loolu muy dëgg gaa yi diine mi ngi noonu diine du lu sunu yonent muhammad alayhi salaam créé ca bu doon loola it jara topp ndax yéefiri seen bopp nangu nañu ni nit ku gën a mat muhammad giseesu ko ba benn waay ca ñoom bind ca benn téere les cent xale yu bari liir nañ ko xool ñi nga xam ne ñoo marqué histoire humanité yépp buur yaag artiste yaag chef de guerre yaag ku ne ba mu leen dajalee comme génne premier mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam donte ne gëmu ko en tant que rasulullah waaye ñun jullit bokk na lu gën a metti lay wax jullit nga ne ko alquran muhammad moo ko créé déedéet dañoo wàcc ci moom diine ji sunu borom di ko wàccee ba mu koy wax iqra di ko wàccee di ko wàccee di ko wàccee ba diine ji yax tàkk mat sëkk mu ëmb alquran ak sunna loolu la jullit war a gëm maa ngi dégg waxtaan benn maire bu màggat wallahi passé na juróom-ñeent fukki at di wax ak benn sëtam ci wàllu diine mu ne ko diine mooy li yàlla yónni woon ci muhammad ñun ñëpp buñ ci jàppoon problème du am mu ne ko waaw maam xam nañu loolu waaye nag tamit nit ki daa bëgg lu muy dolli lii ñuy def yépp ak ndollant la mu ne kon yéen da ngeen a jàpp ne lañ jële ci muhammad doyul wallahi sët bi xamul lu mu koy tontu soo jàppee ne lañu wàcce woon ci sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wasallam doy na sëkk ana loo ciy dolli kon loolu mbokk mooy dégg gi mat sëkk al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaama diina matal naa diina ji mottali naa ko nii laa ko bëggee loolu nag muy dëgg waaw gars yi lu safaanu dëgg lu mu doon mooy fen la kaka jëkk a wax ci lu ñuy xam mooy imaamu malik ba muy ca ba muy tontu gars yi ci wàllu musique donte ne alquran liy firi ndax sunu borom yàlla moo ne maza ba'da alxaqi illa illa dalal loolu la Malik doon tontu gaa yi ñëwoon di ko laaj waaw loo xam ci musique mu ne leen ndax musique xaq la ndax dëgg la bu lay jegeel yàlla bu lay jëriñ kaza wa kaza ñu ne ko déedéet mu ne leen maza baad al xaqi ila dalal loolu kon mbokk diine ngi noonu mooy lan la wàccoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom yàlla bañ mu réer mu wattul ñu ko ci ab téere wattu ko ci dënni ay sahabaam sahaba yooyu wattu ko jottali ko taabiin ñoo jokk jokkalee ko sunu borom nee na danaa ko wattu ba ila yawmi din mbokk loolu rek mooy dëgg lu safaan ak moom rek ak réer la wal xaq waaye sunu borom mu ñu la ëpp ci nit ñi duñu gëm ca loolu it mooy sunnatullahi fi l ard doomu aadama yi la ëpp ci ñoom ñee seytaan yi këf na leen ñee seen bànneexu bakkan këf na leen ñee seen moroomu ñit këf na leen wala seen moroomu jinne këf na leen waaye ala kulli xaal la ëpp ci nit ñi ba ilaa yumi diin duñu nekk abadan ñuy gëm borom boobu nga xam ni nit ñi weddi nañ ko soo demeen Russie dem Chine ca communiste ya soo demoon ca athée occidentaux ya ñu bari ci ñoom nee nañ yàlla amul ña ca wax yàlla am na it utal nañ koy moroom sunu boroom mu ne kaay leen ngeen xalaat xool leen yàlla mi yëkkati asamaan yi ci amul benn kenn bu ko téye waa mbokk jant bi ñu téem lan moo ko téye kaw asamaan ba daanul sun kaw bidd yu ñu gis depuis bañ juddoo lu leen téye ba daan wuñ ci kaw suuf lan moo téye weer bi lan moo téye lépp loo xam ne nii lu dul loola la mooy sunu borom yàlla moo ko téye soo demee tubaab bi di ko wax attraction ak jazibiya ca arab ya ala kulli xaal force la boo xam ne nit du ko gis waaye force la bu am ñu mel ne tey ji suuf am na force boo xam ne dana xëcc lépp lu ko téye mais ndax gis nga ko déedéet portable bi su ma ko téye bàyyi ko pourquoi du dem gauche dem droite wala ci kaw suuf rek lay jëm mooy am na lu koy xëcc jëm ci suuf loolee mbokk tamit mooy la téye asamaan yi téye la ca nekk muy kattanu borom bi subhanahu wa taala nga xam ne boo demee fatir mag ñu ko mag ñu fay wax yumsiku samaa an taqaa ala al ard mooy ki téye asamaan ba du daanu borom boobu nga xam ne moo téye asamaan ci amul kenn yu ngeen ko gisee mooy ka nekk ca kaw arasham ba nekkin boo xam ne gëmal na sunu borom yàlla am na mbindaafan bu ñu tudd arash boo xam ne moo ëmb mboole mi mbindaafanam borom baa nga ci kaw arasham ba nan la fa nekk xamuñu ko nee na toog na ci kaw arasham ba laaj nañ ko imaamu malik rahimahullah ba ko waajilee laajee na ko yàlla nu mu tooga ci kaw arasham ba malik ne ko toog day lu ñu xam la naka la ko yàlla defee nag kenn xamu ko laajte bii ngay laaj laaju biddaa la ndax kenn mësu ko laaj yeneen ci alayhimu salaam laaju biddaa la ne xale yi jàpp leen waa ji ngeen génneel ma ko jàkka ci ñu tug fitna la kon li ñuy gëm mooy allahu alal arsh nan la nekk ci kaw arsh sa yónnee ko ci lu tax mooy laysa ka mislihi shay sa borom yàlla dara melul ne moom doonte ne foofee mu nekk ci kaw arsham ba borom bi nee na moom moo ñu tàggatal jant bi tàggatal ñu weer bi no am moo ni tàggatal jant bi taalal ñu ko depuis combien de temps yàlla moo ko xam taalal ñu ko place ko benn orbite boo xam ne bu doon te ne gën na koo wàcce ñun ñëpp ñu tàkk su ko fa jële woon ñun ñëpp ñu glacé jël weer bi taalal ñu weer bi mu nekk benn satellite bu wër suuf dañu yónnee lumière jant bi doonte ne moom amul sawara loole it indi équilibre ci suuf ba nga xamee ne ku bu fi jóge woon adduna tukki sunu borom tàggat ko jant bi bés bu nekk am na yoon bi muy jaar weer bi tamit am na ay yoon yu ñuy jaar qaddarnaahu manazila loolu lépp mbokk tàggatoog sunu borom bi jalla wa ala la ndax loolu Amérique moo ko def wala Russie la wallahi montre boobu yàlla réglé ndax mas naa paan la wallahi bu paanoon kan moo koy réparé ji kenn saxara shamsa wal qamar donte ne lépp mi ngi daw am fu mu yem fam yem kenn xamu ko bu leen tubaab bi yóbbaale ak politiciens yi naan jusqu'à l'extinction du soleil dans cinq milliards d'années ku leen wax ne jant bi dafay tàkkaat cinq milliards d'années ku leen di waxaat ne adduna dana dundaat cent ans ku xam loolu kenn xamu ko sunu borom li ñu gëm mooy adduna am na fu muy yem foofee muy yem malaaka xamu ko nit xamu ko jinna xamu ko yàlla rek moo ko xam am déet ñu ngi noonu ila ajalin musamma borom boobu nag jàlla wa ala mu ne yudabbirul amr kookee yëkkati asamaan yi kookee tàggat jant beeg weer bi lépp luy dox mooma ku dee mooma ku dund mooma ku feebar ci kattanam la ku wér ci kattanam la ngelaw buy wadd ci kattanam la buy daw ci kattanam la taw buy jóg ci kattanam la amul lenn luy xew ci kasamaane suuf ak luy xew fi dunia wal axira lu dul yàlla ci ndigalam lay doxee am déet mi ngi noonu yudabbirul amra lépp mooma jalla wa ala wallahi amul kenn ko mën a yëkkati loxoom illa bi iznillah soo demoon hôpital fan gis fa ay ponkal yu ne janjang seen loxo fa mu tëdd mënuñu ko yëkkati dëgg la am du dëgg voilà mi ngi noonu kon lépp ci kattanu yàlla la subhanahu wa taala yudabbirul amr may wëlbati mbir yi lu tax sunu borom wax lii leeralaat ñu lii fàttalil ñu lii mu ne mooy ki teqale ay aayaam ngiree gëm ngeen gëm seen borom jalla wa ala na am bokk na yéeféer yi li ñuy wax ci yàlla dana ko nettali ci kanam mooy nit ki bu dee def ay yax def poussière lii ban kattan moo ko mën a dekkalaat sunu borom mu ne ki yëkkati asamaan yi ki nga xam ne moo tàggat jant beeg weer bi ki nga xam ne mooy doxal mbir yépp ku mel noonu moo leen di dekkalaat ngiree ngeen am loo xam ne lu wóor la muy al yaqin mbokk sunu borom boobu bam ñu wonee kaw asamaan yi wàcce nañu ci kaw suuf mu ne xool leen suuf yàlla moo ko tàllal na am bañ man cee bay suñuy tool man cee tabax suñuy kër yàlla moo ci def ay montagne montagne yooyu téye ko def ci équilibre ba ni muy daweek ñun dépenteek ñun ba tremblement de terre yi ci am yépp dul doon luy tasaare suuf waaye yàlla moo ci xotti ay dex dex yoo xam ne nii dañuy may ndox mu neex ñun Sénégal am nañ ci lac de Guiers ay fleuve yi nekk Fouta Jalon ay yoo xam ne nii doomu aadama yi daan ci mën a bay daan ci mën a nekk di naan ngiree mën a doon ñoo xam ne ñuy dund lañu borom boobu subhanahu wa taala indil ñu kenn xamul ñaate million ci espèce meññeent meññeent bu nekk mu def ko ñaar pour wane ne Darwin ak say taalibe da ngeen di fen yéen ñu jàpp ne par hasard la déedéet lépp yàlla moo ko créé te lu nekk paire la ko def muy góor ak jigéen gannaaw ba sunu borom boobu tàggatal ñu guddi tàggatal ñu bëccëg guddi googu di dem di muur bëccëg bëccëg di dem di muur guddi lii lépp sunu borom yàlla mu ne def naa ko ngiree ngeen ah ñeel xeet boo xam ne dañuy xalaat mbokk asamaan mi ngi noonu ak la ca nekk suuf mi ngi noonu ak la ca nekk. géej yaa ngi nii dex yaa ngi nii le temps mi ngi nii muy ah guddeeg bëccëg ak yeneen ak yeneen ngal la waay xamal ne jullit bokk na ci jaamu yàlla gi gën a màgg nga toog di xalaat ci sa mbindaafu na boroom ngal la nañ góorgóorlu bañ a jël sunu temps sunu esprit sunu xol sunu xalaat yépp neenal ko ci ay sport neenal ko ci li ñuy tudde jeu d'esprit tudde ko damier échec tudde ko sudoku tudde ko bon croisé tudde ko lu mu mën a doon jël des heures de temps jagleel ko ay mbir yoo xam ne nii caaxaan kese la amul lu mu lay wàññi jullit jagleel ko al azkar jagleel ko jàng alquran même boo azkarul jàng alquran ngay toog di xalaat ci sa mbindaa sunu boroom loolee sunu boroom mu ne boroom xel yi loolu la ñuy def ndax temps dafa cher xel dafa dafa cher fépp foo koy utiliser war nga laaj sa sa bopp lii lan la may jëriñ ci sama wàllu diine ndax suñu borom dalaa bindoon ngir nga jaamu ko sa lépp dafa war a nekk jaamu yàlla subhanahu wa taala borom boobu mu ne ay xalaat mi ngi nii li qawmin yatafakkaruun ñeel ñoo xam ne dañuy toog di xalaat ci seen kawtee fi borom loolee borom bi subhanahu wa taala gis ngeen wax na ko ci ayat yu bëri inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi leyli wan nahar la ayatin li qawmin yatafakkaruun nekk na ci dans l'espace muy xalqu samawati wal ard ak le temps ixtilaafu leyli wan nahar loolee ñaar yooyu nga xam ne moo lay awante doomu aadama di lay jëme ci sa borom borom xel yi dañuy toog toujours di xalaat ci mbindaafu ne yàlla yi di xalaat ci la nga xam ne moom la yàlla def ci histoire ak lay nar a ñëw ca kanam mu jëriñ leen jegal leen seen borom jalla wa ala yal na yàlla boole ñu ca ñooñu
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
sun boroom subhanahu wa taala ngir woo xelu jaam yi mun a xool leen wa fil ardi qita'um mutajawirat nekk na ci suuf ay dogit yoo xam ne dañoo sësaloo ay dëkkandoo sësaloo wa jannatun min a'nab ak ay jardin yoo xam ne raisin la wa zar'un ak loo xam ne am mbay lay doon wa naxiilun ak tàndarma yoo xam ne sinwaanun ñoo bokk benn dat nekk ñaari tàndarma wala ñetti tàndarma bokk benn dat muy saxuwaay wa xayru sinwaan ak yoo xam ne bokkuñu ab dat ay bokkuñu saxuwaay moo ne ñii ñépp day yusqa bi ma in waaxid dañ leen di nàndale ci benn ndox wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukl donte ne ñun yàlla ñuy génne la lenn la ca la ca des ca la nga xam ne mooy lekk ga mooy tefka ga inna fi dhalika la ayatin li qawmin yanqilun nekk na ci lii day ay kawteef ñeel xeet woo xam ne dañu am xel wa in taajab yow nag yonente bi bu dee da ngay waaru fa ajabun qawluhum ak yéeme seen wax ji wax ji mooy lan a ida kunna turaba ndax ñun bu ñu dee ba nekk suuf a inna la fi xalqin jadid ndax ñun dañuy nekk ci bindin gu bees ulaika alladina kafaru bi rabbihim ñii day mooy ñu weddi seen boroom wa ulaika al aghlalu fi a'naqihim ñu mel nii day la njañ ya di nekk ci seen loos ya al aghlal mooy feer ya yàlla dina leen nare chaîné jël boole seen loxo yi seen loos ya ca gannaaw wa ulaika ashabu nnar ñii dañooy ñooñu sawara hum fiha xaalidun te dañu fay beelu ba faww mbokk sunu boroom dafa bëgg julit doon ku yeewoo li ngay gëm nga gëm ko ci yaqin du rek ne lii laa fekkoon samay baay lii laa fekkoon samay maam ndax da nga war a doon ku pare di woo ñeneen ci lislaam ak ay preuve yu leer moo tax sunu borom yàlla sant ñuy ñuy jëfandikoo sunuy xel gannaaw bañ jàngee ay aayaam ci téeréem ñu jàng ay aayaam ci jaww mbokk yàlla ñaari aaya la am aaya bu ñuy sëgg di ko jàng ci téeréem ak aaya bu ñuy toog di xalaat di xool borom mën a xool leen suuf da ngeen ci gis ay place yoo xam ne dañu sësaloo et pourtant bee dafa weex bee xonq bee ñuul bee saf sàpp xorom loo ci def du sax dara bee doon joor bee doon tund ila axiri dañoo sësaloo waaye tamit noonu la amee ay jardin yoo xam ne nii ña nga ca biir suuf yooyee yee raisin la yee am mbay la dugub la wala mboq la lu mën a doon yee ay tàndarma la yu bokk dat wala bokkuñu dat moo ne yii yépp day benn ndox rek moo leen di nàndal te gis nga ni ñu wuutee ci lekk gaa yi xoolal li nga xam ne moom la sunu borom tudd fii ak yeneen yu dul yi di million d'espèces léeg-léeg nga lekk bi mu wex xat comme kaani nga lekk bee mu saf saf ak sukkar fan lay jóge mi ngi jóge ci am ndox yal na yàlla yërëm sunu mag ji ibu saako daana wax bu doon doomu aadamay def danaan ee yéen borom tool yi maa ngi taw ndoxu kaani ji leen kaani bu ko defee ñu ji kaani mu taxaw tawal leen ndoxu kaani ba seen ndox ñor mu ne doog a woon ak ne gaa yi ee yéen waa ñebbeeg waa gerte maa ngi taw ndoxu gerte kaay leen ji gis ngeen mais sunu borom yàlla jalla wa ala suuf bi benn suuf la ndox mi ñëw génneel kaani kaaniim ca bu ñuy doog a génn ñoom ñëpp ay xob yu vert la ñuy doon boo mosee lépp nekk ñax ah ni muy tawee ni muy ñore bee daal di génn saf-saf sukkar bee wexat bee forox da ngay gis ne benn bokku ci ak sa moroom amul benn fruit bu bokk ak moroomu fruitam lu mu saf abadan ñaari fruit yu bokk gu amul ci kaw suuf bal léeg-léeg sax nga gis ci benn fruit nga gis ci ay façon yu dul jeex gaa yi mango ñaata façon mango am kenn mënu ko lim wallahi da ngay gis sax ñi miin tool yi da ngay gis ne ay façon mango yoo xam ne ñu nekk ci benn tool benn façon mango la waaye ñu gis ci benn garab boo xam ne moo dàq yépp bal lu gën a yéeme loolu léegi nga gis benn branche boo xam ne ya ca nekk moo dàq yi nekk ca beneen branche ba kan moo def lii mooy sunu borom jalla wa ala nee na man maa gënalee un million d'espèces dajale ko un million de goût da nga ko gis kooku yàlla rek ko man un million de melokaan da nga ko gis yàlla rek ko man un million de xet da nga ko gis gaa yi ndax banana ak pomme ñoo bokk xet gaa yi ndax orange ak la nga xam ne mooy xaal ñoo bokk xet la wallahi amul benn bu bokk sama sa morom li nga xam ne mooy melokaan ba wala bokk ak moom xet ba wala bokk ak moom cafka ga wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukl borom boobu subhanahu wa taala mu ne yéen borom xel yi mi ngi noonu mbokk kon xel a ngook xel dafa am fuñ koy war a jëfandikoo kan mooy borom xel ci yàlla mooy ki nga xam ne xelam ba xool na ci kawtiifi borom bi mu màgg ci borom bi ba yonent bi alayhi salatu wasalaam di ñuy wax ne am na waa jii day safara du ko laal abadan mooy waa ji wéet di xalaat ci màggaayu yàlla di xalaat ci ëllëgam ba tuur ay rangoon ku mel noonu day safara du ko laal mukk yàlla na yàlla boole ñu ca waaye nuñ koy amee télévision journaux lii xew ci sunu mbedd yi mi ngi noonu këf nañ sunu xel yi ba xalatuñu sax xalaat sunu bopp loolee ñu góor góor lu bàyyi ci sunu xel bu baax les mille débats les mille je ne sais pas là amuluñu benn njëriñ wallahi borom bi mu ne ñiy xalaat xel ngi noonu ndax mooy borom doctorat ba laa wallahi ndax mooy architecte ba yëkkati cent étage laa wallahi ndax mooy ko fexe ba fiise bi danga koo asamaan laa wallah ñi xellu ci ngi ci yàlla mooy ñi xam lu tax yàlla indi leen ci kaw suuf lan moo leen di xaar ëllëg ñu jàng diine yàlla di dund ko ñii ñooy borom xel yi yàlla na yàlla boole ñu ci ñoom li xaw mi yanqiloon borom boobu subhanahu wa taala mu ne yow mi yéeme ne kaay da ngaa bëgg a yéemu rek kaay wax la lu gën a yéemu ñoom day nee na ñooy suñu dee ba nekk poussière nu ñuy dekkiwaate ah ma yow doomu aadama lu nekkoon sa cosaan lu nekkoon sa cosaan yow yaa ngi nekkoon toq ma nii yow neuf mois après nga génn nekk liir nan ngay weddee ne soo nekkee suuf da nga dek delluwaat nekk doomu aadama yow doomu aadama mi ji sa pepp dugub bii ci suuf sa trois mois après nga góob ko mu génneel la ay milliers de pepp dugub mi ngi noonu essayé bu la yàlla natt woon nga dem ci àll bépp benn pepp dugub ngay jël nga ji ko nga xool ñaata gub la lay génneel ñaata nga ca mën a génne loolee nan nga koy gëme ba pare di weddi ne yow boo dee dañ lay dekkal moo tax sunu borom mu ne ñii daal ay bàyyuma lañu bu ñu dekkee dañ leen def ni ñuy def bàyyuma yi mooy dañ leen njoñ ca seen loos ya doonte ne lu gën a ñaaw mooy jël seen loos yóbbu ci seen pot jël ay chaîne takk leen gurgur leen sànni sawara ndax comme dañoo defal seen bopp ay waayu ma defu ñoon seen bopp ay nit borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni ñii ñooy ñooñi sawara te dañuy fay sax ba faw loolee kon mbokk dañuy wone ni bokk na yoon bu ñuy yóbbu aljanna mooy xalaat ci kawtee fi borom bi waaru ci bëggam waaye bokk na ñii dumm yu aayee borom bi loolu mandargay waa sawara la yal na yàlla musal ñu ci
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
sunu borom subhanahu wa taala day wax ne wa yastacjilunaka bisayi'a ñi ngi lay yàkkamtiloo ci lu bon la ngay wax na ñëw ci ñoom qabla alxasana jiitu lu baax la nga leen di dikk wa qad xalat min qablihim almusulaat doonte ne jiitu woon na leen la nga xam ne mooy ay misaal wa inna rabbaka la zu magfiratin linnaasi ala zulmihim donte ne sa borom yàlla day borom njëggal la ñeel nit ñi ci seeni tooñ wa inna rabbaka la shadidul iqab donte ne sa borom yàlla ku tar nu muy mbugale ay jaamam la ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية آية من ربي bokk na lu yéefér yi wax an lu tee woon ñu wàcc ci moom aaya bu bawoo ci boroomam innama anta munzir yow doo dara lu dul waaraatekat wa li kulli qawmin haad doonte ni bépp xeet am na koo xam ne ni moo koy jubal mi ngi noonu mbokk yonent yi mboole seen bokk na lu ñu leen wax seen xeet kaay leen ngeen dugg ci lislaam bàyyi leen xërëm yi kaka jiiti kaka jëkk a wax mooy seen maam ñoom ñépp di nuux alayhi salaam mooy njël benn yonent bi yàlla wàcc ci kaw suuf lan la nuux waxoon yursili samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yajal lakum jannatin wa yajal lakum anhara kaay leen ngeen tuub dugg ci lislaam bàyyi shirk wéetal yàlla yàlla tawal leen génne leen ay dex may leen alal may leen njaboot su ngeen ko deful nag mbugal dana dal seen kaw waaye mboole mi xeet dëppoo nañu ci ne gëmuñu la tey gëmuñu la ëllëg su dee li ngay wax am na indil ñu mbugal waaw gars yi ana lu gënoon a logique mooy ñu essayé la yonent yi doon wax ba xam xéewal dana ñëw am déet am déet waaye gis na cheytaan ni ni muy galgale doomu aadama moo tax sunu borom ni ñi ngi lay wax indi mbugal mi avant xéewal gi te pourtant am na ñu leen fi jiitu woon loolu la ñu waxoon mbugal dal seen kaw xawmu nuux xawmu huud xawmu saalex ba ki ci mu joon mooy firawna kàccoor bu bon ba doonte ne ni sunu borom yàlla jalla wa ala yonent bi alayhi salaam ñaanoon na ko na ko sama xeet bu leen mbugal mukk comme na nga mbugale woon xeet yu jëkk yi yàlla nangul ko ko borom boobu it subhanahu wa taala di wax ni mooy njéggal doomu aadama yi ci seen bakkaar loolee mbokk julit xamal ne say bakkaar lu mu bari bari bari bari kenn doxul sa digganteeg tuub yàlla bal la loolee na nga ko xam bu baax kenn doxul sa digganteeg tuub yàlla bal la ngir bañ nit am arrière pensée ah man daal li may def xanaa yàlla duma ko baal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi ñuy nettali waajuray juróom ñeen fukki nit ak juróom ñeent gaa yi rey kenn nit rek xanaa musiba la waaye juróom ñeen fukki nit ak juróom ñeent la rey yàlla def ci xelam ne man mi daal war naa tuub mu dem fekk benn jaamu kotu yàlla boo xam ne jaamu yàlla rek ay métier waaye jàngul diine mi ngi noonu loolu mooy musiba musiba yépp mooy loolu mu ñëw ne ko man day damaa rey juróom ñeen fukki nit ak juróom ñeent léegi nag dama bëggoon a tuub loo ci xam mun na ko bisimilaay jàmm benn julli rek boo ko reyee sawara rek nga jëm nga ne rey nga juróom ñeent fi ko juróom-ñeent yow koy sawara rek nga jëm mu ne ko comme sawara rek laa jëm xaaral yu ma téeméeréer la ñu ngi noonu daal di cor jaasi mu dee muy téeméeri ñett mu dem ca lam nekkoon ba mujj yàlla dugalaat ci xol bi dafa war a tuub mu laajte waaw dëkk bi kan moo ëpp xam-xam ci dëkk bi ñu ne ko demal laaj diw ba mu ñëwee ci moom wax ko fi mu jaar fépp kooku xam naa da nga ne da boo demee daa ragal waaye ragalul daa am xam-xam rek mu ne ko gis nga ku dox sa digganteeg tuub ku dox sa digganteeg tuub comme yow yaa ngi dund rek xamal ne yërmande yàlla mi ngi ànd ak yow tuubal yàlla baal la allahuma nag xamal ne dëkk bii du dëkk bu baax mooy dëkk bi nga nekk du dëkk bu baax demal dëkk sàngam nga sax fa ànd ak ñoom jaamu yàlla loolu it naka mbokk julit xamal ne bokk na ci jaamu yàlla nga xool fan ngay dëkk mi ngi noonu nga xool fan ngay dëkk quartier yoo xam ne ay mbaam xoox ak naan kotu sangaraak mii musique guddeeg bëccëg rek moytul dëkk ci quartier yooyu xoolal quartier yoo xam ne ña fa nekk dañuy jaamu seen borom jalla wa ala loolu day suuxat sa diine waaw gars yi misaal boobu lu ko mën a passé téeméeri ñi teewul yàlla baal ko tàbbal ko aljanna ndax ci yoon bi la dee yàlla subhanahu wa taala baal ko loolu kon yàlla day bale waaye nag ndax fa la ñu war a yem comme ni Sénégal di def boo xam ne naa waa yàlla suxurut déedéet mbokk yàlla saxarul de waaye yàlla ko am fulla la mooy sunu boroom tëral na aw yoon ku jaar fii mu dinaa la tàbbal àjjana ku jaar fii mu duma la képp koo xam ne jàdd nga fi mu wax ba baa dee di la ca fekk borom bi mu ne ko tar ay mbugalam la kenn mënul mbugal ni yàlla di mbugale am déet laa yu azibu azabahu ahad borom boobu subhanahu wa taala gis nañu ni ku tar ay mbugal la ku bari yërmande la léegi nag yéeféer yi bokk na luñ doon wax yonent yi daa di ne waaw moom nee na yàllaa ko yónni na indi kawteef comme ni yonent yu jëkkee doon indee mooy saalix indi woon ne nee na ñoo gileem Musaa yoroon na aw yat léegi moom lan mooy kawteefam borom boobu subhanahu wa taala ne yow day waaraate kat nga ndax wér na ne ni mboole mi kawteef bu yàlla mas a jox ay yonent buñ ko dajale woon kawteef bi mu jox yonent yàlla muhammad moo gën a màgg muy alquranul karim di sax ba ila yumi din borom bi nag ne xeet bu nekk dana am ku leen di jëbal kooku mooy kan mooy sunu yonent bi nga xam ne mooy alhaadi ila siratul mustaqim képp ku ko topp jub ku safaanoog moom réer nga mi ngi noonu الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال
sunu boroom subhanahu wa taala mu ne allahu yaalamu ma taxmilu kullu unsa yàlla day xam na la mu ëmb bépp jigéen wa ma taxiidu l arxaamu wa ma tasdaad ak la nga xam ne dana ko wàññi lay biiru jigéen ya ca deret dee tuuru wa ma tasdaad ak lay yokk ci seen ëmb ya wa kullu shay'in indahu bi miqdaar bépp mbir bu mu mën a doon ca moom yàlla nekk na loo xam ne ci ab dogal la nekk ab nat aalimul xaybi wa shahaada moom dong mooy xam la nga xam ne mooy kumpa ga ak la teew la feeñ alkabirul mutaal mooy ko màgg ka kawe kawelu ca kawewu ca ca ay jaamam sawaa'un minkum man asara alqawla wa man jahara bi yemoo na ci moom ka yelu ay waxam wax ko ca suuf ak ka biral ca kaw wa man huwa mustaxfin bil layl ak ka làqutu ca guddi di def la muy def wa saaribum bin nahaar ak kana fang ci digg yoon ba ci digg bëccëg di dem lépp a yem ci moom lahu muaqibatum min bayni yadayhi wa min xalfi ndax ñeel na ko ay remplacente kat ñuy wóotante di ay malaaka ca kanamam ak ca gannaawam yaxfazunahu min amrillah ñu koy wattu ci mbiru yàlla inna allaha la yugayiru ma bi qawm seen borom yàlla du soppi mukk lu nekk ci aw xeet xatta yugayiru ma bi anfusihim xanaa lu dul dañoo soppi lu nekk seen bakkan wa ida arada allahu bi qawmin suua su dee yàlla dafa namm ci benn xeet lu bon fala maradda lahu loolee kenn mënu koo delloo wa ma lahum min dunihi min waal te du leen ñeel gannaaw yàlla kenn ku leen di féetewoo huwa allazi yurikumul barqa xawfan wa tamaa moo leen di won melax gi ngeen ànd ak tiit waaye ànd ak xemmem la ca gannaawam di ab taw wa yunshiu sahaba siqaal mooy sos niir ya muy nuage ya mu doon lu dis gann wa yusabbihu ra'du bi hamdi ma ngay sabbal dënu ga ci ak cantam muy tonnerre ga ci cantam wal malaikatu min xiifati malaaka yaa ngi kay sabbal ngir ragal ko wa yursilu sawaiqa moom mooy yónni la nga xam ne mooy sawara bay jóge ca dënu googee fa yusibu biha man yasha mu laalale ko ku ko soob ci ay jaamam wa hum yujaadiluna fillah lii lépp teewul ni ñaa ngi dagg sante ci mbir yàlla wa huwa shadidul mihaal ca mooy ki nga xam ne mooy ki tar la nga xam ne mooy kàttan gu muy mbugale mi ngi noonu mbokk sunu boroom day wax ni lépp loo xam ne jigéen la nit la bàyyuma la lu cay jigéen rek yàlla xam na la mu ëmb lu mu doon moo gaa yi ndax dara mën naa ëmb illa bi iznillah abadan mun ta nekk doomu aadama boo xoolee sa cosaan borom bi yàlla subhanahu wa taala da ngay gis fa muy sase doomu aadama mi ngi doon ay million ñooy daje ci li ñuy tuddee spermatozoïde yoo xam ni bokkuñu melokaan bu dee ni tubaab yi dañ koy tudde x y yooyee da ngay gis ne ndoxu góor googee mooy ñëw layal génn ci jigéen ba nga xam ne bëtu neen mënu koo gis sunu borom yàlla mooy dogal million yooyu am benn bu ca dem daa di tabbi bi iznillahi taala ab ëmb doo ko commencé am loolee sunu borom yàlla di ko sàmm di ko jaarale ay étape ay étape ay étape loolee fa mu nekk ba doon doomu aadama ndax mënul naa génn ci yàlla àndu ci abadan mënul woon a génn ci yàlla àndu ci loolu itamit borom bi subhanahu wa taala wax da ngay gis ne ndax ci nit la yem laa wallah ak lum mën a doon luy ëmb ma gaa yi da ngay dégg ñu naan dafa tuuti comme janax sunu borom yàlla dogal janax man laa jural juróom benn doom am déet xam nga dama doon xalaat waaw lu tuuti ne janax lu muy ëmbee ko wasin sunu borom yàlla def léegi mu jural la juróom benn doom wallahi sunu benn njombaru dëkkandoo mi ngi jur fukki doom ak ñaar ci fan yi passé ci kattanu yàlla jalla wa ala tey ngay gis yàlla mi dogal la ko soob benn ñay mën na bëgg a jur fii am problème nag mën bëgg a jur am problème ci ay benn doom la ñuy jur sunu borom dogal bàyyi mu boo xam ne da nga koy bokk sa loxo mu jural la fukki doom ak ñaar loolu lépp bi iznillahi taala borom boobu yaalam ma taxmilu kullu unsa te moom rek moo ko xam ndax kii ëmb bi sosu góor ak jigéen lay doon ndax kii day nar a doon ko baax ndax ku nar a bon lay doon ndax day gudd fan ndax day gàtt fan ndax day texe day texe di gaa yi loolu ndax li nga xamee ni nii mooy li ñu xewal tey jii tey di échographie mën naa xam loolu abadan mënta xam loolu kenn rek moo ko mën a xam muy sunu borom jalla wa ala ma taxmilu kul unsa gannaaw ba am na ci jigéen ñoo xam ne dañuy avorté wala seen deret wàññeeku tax ba nga xamee ne nii ëmb ba ah dafay prolongé loolee am ñoo xam ne nii it dañ koy firi ci forme ëmb ba maa taxidul arham am na ñoo xam ne dañuy wasin avant ñu am juróom-ñeenti weer ca loolu bu matee juróom benn weer rek da ngay gis na mën naa dund am na ñoo xam ne seen ëmb day continuer ba passé juróom-ñeenti weer loolee mën na dem léeg-léeg ba deux ans imaamu malik rahimahullah nee na am na ay dëkkandoo am na ñetti doom doom bu nekk ñeenti at lañ ko ëmb bi iznillah loole da ngay gis ne inna allah ala kulli shayin qadir yaalamu ma taxiidu l arham wa ma tasdaad borom bi nag mu ne lépp nag maa ko nattale subhanahu wa taala moo nattale doomu aadama mu ndax gaa yi xoolal su neexoon yàlla subhanahu wa taala million de spermatozoïdes yooyu bu neexoon yàlla mu dugal doomu aadama bi di jur par cent bu ko neexoon ndax xam ngeen jën yi nekk biir géej seen neen yooyu ñaata milliers de neen lay génne yàlla moo ko xam mais da ngay gis sunu boroom ci kattanam ngir yërëm doomu aadama yi ni mu ñu équilibré par benn doom nga mën koo yar mën koo sàmm léeg-léeg nag pour wane kattanam mu génne ñaar léeg-léeg wane kattanam mu génne ñett exceptionnellement léeg-léeg wane kattanam mu génne ñeent ba at yi passé am na benn jigéen bu juróon juróom ñetti doom ci Arabie saoudite juróom ñetti doom ci Arabie saoudite ci kattanu yàlla kulli shay'in indahu miqdar donte ne moo équilibré lépp commencé ci ngelaw bi ngay noyyi sunu borom moo ci def benn équilibre boo xam ne bu ko passé woon say dënn takk bu ko wàññi woon nga suffoqué sunu borom moo équilibré lépp loo xam ne danger la da ko wàññi demal ci benn àll man faa fekk un million de kéwél un million de naat waaye gaynde yi duñ passé trente gaynde ak àll ba lu mu yaatu yaatu aigle yu mag yi faddaat yi dañuy néew jaan yu danger yi dañuy néew lépp loo xam ne dafa am lor sunu borom da koy yemele kullu shay'in indahu bi miqdar taw booba muy wàcce da ngay gis moo ko def bi miqdar su doon te ne da koo wàcce yenn force yi adduna day daal tukki su ko wàcce loon adduna tukki kullu shay'in indahu bi miqdar lépp moo koy natt mooy juróom benneelu pas-pas boo xam ni moom la ñuy gëm gannaaw ba nga gëmee yàlla ak i malaakaam gëm la nga xam ne ni moom mooy ay yonentam gëm ay téeréem gëm bisu pénc juróom benneelu pas-pas ba jëlul war a gëm mooy kullu shay'in indahu bi miqdar te mooy al iman bil qadr mooy nga gëm dogali yàlla subhanahu wa taala ci ay jaamam borom boobu nag ne moom dong mooy ki xam kumpa ak lu feeñ doomu aadama sa xam-xam dafa limité ni sa gis limité boo taxawee di xool sa gis dafa mën a am fu mu yem ndax gaa yi nit mën naa toog fi di gis Saint-Louis abadan mun ta nekk sa gis daa am fu mu yem noone itamit sa xam-xam noonu la limité borom yàlla nag mooy ki amul kumpa ci dara mooy ki xam lépp aalimul xaybi wa shahada mooy alkabir màggaay goo xam ne yow jullit bés bu ne nga naan allahu akbar ñaata yoon yàlla xam waaye xoolal borom bi nee na asamaan ni juróom-ñaar ak suuf da koy nëb yowmal qiyaama gaa yi kooku màggaay mu mu toll kenn mënu koo xam alkabir mooy ki nga xam ne moo kawe ci kaw jaamam yi moo kawe ci timlin kawe ci ay darajaam kawe ci léppam ndax mooy xaaliqu kulli shayin jalla wa ala borom boobu nag noonu mu mel mu ne wax nañu sànq mi ngi ci kaw arasham ba xanaa kon mën nañoo def loo xam ne moom yégu ko am na ay yéefiri arab gëmul nañu yàlla de waaye dañ daan wax bu ñu waxee ci kaw yàlla da koy dégg suñ bëggee wax njaaxum dañuy déeyante ñu ne bu ñu waxee ci suuf yàlla du dégg borom bi yàlla nag subhanahu wa taala ne yemoo na ki nga xam ne moo yelu ci suuf déey kam déey ñam toogal kenn déggul wala ki nga xam ne nii dafa dem wax ca kaw ñépp dégg lépp yem ci moom waa ji bàyyi ba xaaju guddi mu rocceeku ca lalam jabaram sax yëgu ko dem dugg ca kalando ba am lu mu fa def ku mel noonu ak ki bàyyi ba bëccëg ñépp seen ko mu jaar ci xàll wi dem suñu borom mu ne lii lépp yem ci man gis ngeen yemul foofu borom bi mu ne boole naa koog ay malaaka yoo xam ne ñi ngi remplacante pour wañu ne rek ne malaaka yi sax duñu sonn lu tax yonent bi alayhi salaam nee na fajar la benn la ñuy wàcc toog ba tàkkusaan dem ñeneen ñëw noonu la ñuy nekkee ba ilaa yawmi ba baa su yàlla di dogal sa bisu dee moo ak xibaar di wóotalante malaaka yooyu daañu ne wattu min amrillah benn borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci ñaata lañu la shakk am ne kiraaman katibin yoo xam ne ñoom li leen itteel mooy li ngay wax ak li ngay jëf jeex na kiraaman katibin yaalamuna ma tafalu ñoom daal fajar ñëw nañu toog loo wax ñu enregistré gis ngeen fukki portable yi ma wër li may wax lépp ñu ngi koy enregistré am déet ne tekk tekkaaral fi ñu toog am déet waaye dañ leen a gis mais malaaka yi doo leen gis mais ñoom loo wax ñi nga enregistré loo jëf ñi nga enregistré bu tàkkusaan ñu lem seen i dossier yeneen malaaka yi ñëw ñu daje fi ñoom ñeenti ñëpp ci waxtu julli tàkkusaan ñii yéeg ñi ñi war a fanaan si fanaan ak yow fas yéene enregistré ba fajar jot yàlla na yàlla sàmm ñoo gis ngeen dara du ci say mbir am na ñoo xam ne nii li leen say liggéey mooy yow doomu aadama yaa ngi dox ci jinde yi yaa ngi dox ci oto yi yaa ngi dox ci danger dul jeex waaye dara du la mën a dal lu dul bi iznillah lu la nar a dal ca bokkul ci sa dogal téere dogal malaaka yi ñoo koy falang mu dem yoonam loolu tax julit du ragal ku dul yàlla jalla wa ala gis ngeen lahu muaqibatun ah min bayni yadayhi min xalfihi yaxtazunuhu min amrillah mboolem waa asamaana suuf buñ daje woon bëgg laa lor ci yàlla tudd ko duñ la mën a lor abadan lii la ab julit war a gëm borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne man day duma soppi li nekk ci aw xeet lii waa xeet ba soppi wuñu li nekk ci seen bopp loolu it mbokk di benn règle mooy dëkk bi tey lu ñuy jàmbat crise ci wàllu gu nekk wàllu économie bi wàllu lu nekk ñu ngi koy jàmbat loolee mbokk lenn dong moo koy mënoon a dindi ñu tuubaat dellu ci yàlla bu dee gëm nañ yàlla jàlla wa ala loolu rek moo ko mën a dindi su ko defee yàlla naatalaat sunu tool yi tey boo gisee problème yi ñu am ñun ñëpp mooy li ñuy tuddee exode rural dëkk yi mboolem àll bi ña fa nekkoon ñëpp màbb nañ ñëw ndakaaru nu ñuy def parce que àll ba amatu fa dara lu waral loolu mooy nawet yi dara baaxatu ci loolee da ngay gis ni sunu borom yàlla ci kattanam moom ma génneel ndox mais Arabie saoudite àdduna yépp di ko dunde tey mi pétrole loolee da ngay gis ni ci kattanam su ko neexee bépp dëkk julit bu ko déggal dana leen utal ay xéewal yoo xam ne day baawoon seen kaw loolee nag yàlla du ko dind lu dul ñu soppeeku donte ne yàlla du nangu xéewal lu dul borom daa soppeeku naka noonu du indi xéewal lu dul nit ñi dañoo tuub dellu ci moom bu ko dëkk bi yépp deful it yow jéem koo def bu ko dëkk bi yépp deful yow jéem koo def fexeel wëlbatiku tuub toroxlu dellu ci sa borom subhanahu wa taala borom boobu ne su dee damaa namm musiba ñel benn xeet kenn mënu koo fekk ah gaa yi bés bu nañu dégg waa États-Unis ñu ne am cyclone buy ñëw léegi la ñu tuddee ko Marianne léegi la ñu tuddee ko Jeannette léegi la ñu tuddee ko lu nekk am déet yéen a ngi koy dégg da waay ñu ne mi ngi ñëw de cinq jours ñu ngi koy gis mi ngi ca océan bi di ñëw ñu ne tëju leen déplacé ay millions de doomu aadama ana lu teewoon ñu fekk ko waaye sunu borom mu ne su ma namee indi mbugal kenn mënu koo fekk jàll waala su namee indi tremblement de terre kenn mënu koo fekk jàll jàll waa kudul moom su naree indi géej guy bëx di dal daanu seen kaw kenn mënu koo fekk jàll wa ala loolee mooy la borom bi subhanahu wa taala wax du Russie du Amérique du États du du du Japon borom boobu nag mu ne moom moo leen di won li nga xam ne mooy melax gi mi ngi noonu melax gi ngeen tiit waaye ngeen yaakaar boo nekkee Dakar ay melax yooyu sax dootoo dootoo ko yëg étage yi ñu nekk ak yooyu waaye bu nekkoon ci àll bi ah jamono yi wax set am na ay melax yoo xam ne bu ne ray ak dënu ga muy àndal ñépp dañuy tiit ndax loolu na mën a rey doomu aadama doonte ne melax yooyu day indi ay taw te nawet bu la ëpp ay melax moo la gën a bari taw gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala mu ni mooy ki nga xam ne it mooy sos niir yi mu doon loo xam ne lu diis la ba dellu woon tey ci scientifique yi ñu wax la taw naka lay demee jant bay tàngal évaporation am vapeur yooyu dem dajeeg ngelaw yi yàlla di dajale ak graine yi muy àndal sunu borom ci kattanam dajale ay force yu dul jeex ba mu doon am ndox moo xam ne ay milliards de tonnes lay doon ay milliards de tonnes yow xale bi boo delloo sa kër xoolal ñu ne daw taw na cent millimètres ah moom la taw lan lay firi chaque mètre carré yaa cent litres d'eau tuuru na fa xoolal nag tey ñu ne la taw bi commencé na Thiès ba Dakar soixante dix kilomètres carrés chaque mètre carré cent litres d'eau tuuru fa chaque litre d'eau di peser un kilo boo demee xoolal ñaata milliards lay doon sunu borom yàlla mu ne maa ko sos yëkkati ko xellil leen ko boo ko bàyyi woon mën na ba ndox sunu kaw fu ñu jëm gis ngeen kon yunshi u sahaba siqaal borom boobu mu ne it moom mooy yónni la nga xam ne mooy sawaayiq sawaayiq muy foudre mooy takk-takk di courant boobu nga xam ne mooy jóge ci kaw di dal année bu ngeen dégg li mu rey bi may mujjee dégg France nee na dana fare plus de cent personnes chaque année mi ngi noonu ak seen paratonnerre yu bëri ya fa nekk yépp loolee borom bi mu ne maa ko yónni ci ku ma soob ci samay jaam loole di mbir moo xame ne nii ku ne war na ca bàyyi xel borom boobu it subhanahu wa taala ne mooy ki nga xam ne malaaka yi dañuy sabbaal ngir ragal ko waaye dënu gi day sabbaal ngir sant ko mi ngi noonu foo dégg ak dënu xamal ne mi ngi sabbaal yàlla di la won yow mi munta jàngal quran wala nga dégg waxi yonent loo gëm a di gëm a di mu nawet jotee nga war a gëm yàlla malheureusement boo nekkee Dakar doo ci xam dara waaye cay boo nekkoon kaw nga gis xiir bii riddi nga gis melax yi gis dënu yi fokk sa xel dellu ci yàlla mi ngi noonu yusabbihu ra'du bi hamdi mala kii dënu gaa ngi sabbal cant borom bi malaaka yaa ngi sabbal ngir ragal ko looloo tax aay bi it ñu koy war a wax heure bu ñu déggee dënu subhana allazi yusabbihu ra'du bi hamdihi wal malaikatu min xiifati su dee na mun munuloo ko foo dégg dënu waxal subhanallah foo dégg dënu waxal subhanallah borom boobu nag jàlla wa ala mu ne lii lépp day wone naa ko xoolal ba mu commencé ak ñun saar bi lam ñu wax ci asamaan wax ñu ko ci suuf wax ñu ko ci guddi wax ñu ko ci bëccëg wax ñu ko ci taw bi ba fi mu jeexale lii lépp borom bi mu ne teewul nit ñaa ngi dàgg sante ci yàlla saay saay bee nee na yàlla amul kay nee na yàlla am na wala mi ngi koy bokkaale waaye day nañ toog foofu ci xam ne yàlla ku tar ay mbugal la ñeel ña ko weddi yal na yàlla boole ñi ko gëm bañ koo bokkaale ak dara mu musal ñu ci mbugalam àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad fa moom mooy melax gi ngay gis ne le ci kaw sawaiq nag mooy décharge ba cay jóge courant ba cay jóge di dal ci kaw suuf loolu la ñuy tuddee sawaiq nga xam ne sunu borom moo ko yónni ci ku ko neex ci ay jaamam naam bismillah ndax suñu jëlee lem takk ko ci néeg bi loolee day tax dënu di wàcc di wàcc ci néeg bi ala kulli xaal loolu moom gisuma ci benn tegtal ci loolu su doonte ne dañ koo gëstu ci scientifiquement mooy ci xam-xam la ñu wane ne lem am na lu ciy dégager loo xam ne bu dënu ñi bu bu ak dënu du dal ci kawam loolee da ngay gis ne moog paratonnerre ñoo yem amma buñ ci jubloo gàllaaj bu ñuy gàllaajoo boo demee ci kaw gi lu ne la ñuy def ay weyu mbaam ak ay lu kenn xamul lañ koy jël di ko gàllaajoo bu dee loolu lañ ci jublu ne boo ko defee dënu guddi dal su boobaa da ngay gis ne loolee du nekk lu dagan mi ngi noonu dal wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah su dee ne bismillah naam naam ndax bu dee ne dama nekk ci gannaaw imam imam di tari ndax man dama war a ànd ak imam di tari wala dama war a noppi ala kulli xaal la nga xam ne moom la ca borom xam-xam yi wax moo di ne ni ànd ak imam di tari moom ci saar ya loolee benn borom xam-xam waxu ko borom xam-xam yi daal fi ñu wuute mooy ñi ngi biral imam jàng na fatiha ba pare ndax man damay jàng fatiha fekk imaam mi ngi jàng ma jàng fatiha parce que il faut ma jàng fatiha am bu dee dégg nga fatiha imaam doy na la foofee la borom xam-xam yi am uute bokk na la nga xamee ne nii moom lu ci siiw ci ñun mazhab malik bi ñu nekk ku mel ne cheikh nasuddin albani da ngay gis it loolu moom la tànn ak borom xam-xam yi koy jàppale moo di ne ne maadaama yaa ngi ci gannaaw imaam dégg nga imam tari ba ne wala doolin nga ànd ak moom wax amin da ngay gis ne fatiha bi wàcc na la da nga koy déglu mu jàngal alquran ndax imam buy jàng yéen lay jàngal loolee da ngay gis ñoom moom lañ ca tànn su dee ne nag yow déggoo jàngu imam wala tisbaar la wala takkusaan la su boobaa nga jàng sa fatiha am na nag ñoo xam ne ñu wax leneen waaye ñaar yooyu loo ci tànn rek xamal na ay borom xam-xam wax nañu ko wallahu subhanahu wa taala alam loolee da ngay gis ne yenn imaam yi dañoo am problème ci ne yow yaa ngi ne mbooloo mi dañu war a jàng fatiha jàng nga fatiha pare yaa ngi jàng beneen saar donc bi ngay jàng saar mbooloo maa ngi jàng sa kaw looloo tax buñ jàngee fatiha ne teg ba nit ñi jàng fatiha waaye loolu soo dellu woon téere mel ne sifatu salaatu nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam bu na cheikh nasirin albani def ne loolu dañ koo sos même bu ko saudiyee day def it dañ koo sos amul benn sahaaba bu mas a nettali ne yonente bi alayhi salaam mas na jàng fatiha may sahaaba yi ñu jàng fatiha yonente bi ñaari noppi la daan noppi su masaan kabbar noppi jàng-jàng yooyu su masaan jàng ba jàngam pare mu ne tekk ngir dellu si ak noyyeem doog a wax allahu akbar mais jàng fatiha noppul sahaaba yi jàng fatiha noppi googu bu amoon kon problème du am parce que juwee bi li ko waral mooy est ce que dañuy jàng ci gannaaw imam gannaaw ba mu jàngee fatiha ba pare di di ñu jàngal wala loolu ala kulli xaal daal li ma bëgg a wax foofu ixtilaaf am na ci borom xam-xam yi ndax ki nekk ci gannaaw imaam dafa war a jàng fatiha wala wuru ko jàng loolee loo ca def rek baax na wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal kii ab yëgle la ñu ne mbooloom jamaatu ibadu rahman am na benn conférence bu ñu amal dimanche bii di ñëw kër soxna xadi siise mi ngi nekk ci 22 ci wetu daara umul muminina aïcha cinq heures lay doon ki koy def mooy imam asan Seck yaakaar naa lañ nar a waxe mooy kon imam asan Seck moo koy def lam fa nar a waxe mooy wax ju bon nu ñuy mën a def bi éviter ko loolu lañ mooy nar a nekk waxtaan ba yal na yàlla rafetal suñuy wax ak suñuy jëf wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad